ci digënté sëñ Abdou Aziz Dabakh digënté sëriñ Fallou ba yegg si sëñ Abdou Lahat nga xamné Sénégal dafa baxo waxtaan monsieur le ministre ñu ngi confronté wu ci problème mu taalibe faudrait pas réinventer la roue gérer nañ ko fi ci Sénégal gérer ko ak kilifa diine yi plaidoyer bi doon def RTS relayé na ko une semaine kokki la ko défé parce que dafa am tam lu leen war ci daara yi dafa am lu leen war ci seen digënté kilifa diine nécessairement faut ngeen waxtaan ak ñom lu concerné réew mi concerné jullit yi concerné aada ji mënu leen ko def tëju ci seen bureau def ko il faut que ngeen waxante kilifa yi nga xam mom moom ngeen war a parce que ay sénégalais lañu ay nit lañu té ouverture bi ñu am yeen du ngeen leen sax soupçonné kon monsieur le ministre lolu ñu ngi la koy ñaan pour que li nga xam def nañ ko liggéey ko ci lolu ci sensibilisation yi conscientisation yi ngeen bañ a jël loolu rek tuur ko parce que liggéey nañ ci dañ ko liggéey am ci ay résultats mën ko doxal monsieur le ministre ma yeggale nag ci Bambey man bi ma nekkee maire dama jël hectare jox ko ministère de la justice du temps de Moustapha Soura kenn utilisé wu ko Bambey amul tribunal dañ ko luyee te mu nga nekk ca biti prison bi mu ngi ci digg bambay te mooy problème bambay, ak ay fosam dëkk ba kenn mënu fa def benn euh, assainissement mais nag bis boo demee ba yàlla xiir la ci joxe prix prisonnier bi gën a discipliné prisonnier bamba nga koy jox parce que kenn tàntewul évadé wu or ci biir marché bi lañ leen di jaarale amuñu oto effectif bi matul mais en toute discipline dañ leen di jaarale ci biir marché bi ñu dem tribunal ñu juge leen buñ len di tej ñu délu ci wat xana ñoo ñu discipline na donc bis bo amé prix ñoo nga koy jox je vous remercie madame la présidente